asalaamaaleykum Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax am mbégte ak contentement ci bis bi nga xam ne moom lañ doon xaarandi muy dëkku El Ibrahima ñas bi di Kaolack Kaolack nag ku ko dégg di dëkku ndaanaan bu mag a mag a mag a mag ndimbal ak yërmande tey ñu ñëw fi ànd ak ajaratu Jalika mi nga xam ne mooy responsable action Ouest Foire ci ndigalu professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne moo mën ci diine mën ci jàkka ji mën ci école sénégalaise bi ñëpp gis nañ li nga xam ne moom lay def ci mbënd mi jamono yi tey nag ñu ñëw ci Kaolack ñëw ci pépinière bu mag bi nga xam ne nii ay gone lañ fa nekk man nag dama naan gone amul mais lu ne la ndax gone yooyu nga gis ñoom ñooy wëlbati ku nekk lu ne ëllëg donc ci lu mel noonu kon ñi ngi ànd ak ajaratu Jalika jëm fi nga xam ne moom mooy pépinière bi fas yéene leen jox li nga xam ne moom mooy ay ndigal ni su tuuti dinañ leen wan li nga xam ne moom la ñu indi fii ci Kaolack ak ajaratu Jalika la grande responsable bi nga xam ne moom moo nekk fële ci Ouest Foire Jalika fi ci Kaolack di bis bu spécial bis bo xamné nak manam ñu bari ñu ko doon xaar au nom de Action fekk ci fi le coordinateur national ki nga xamné mom moy mooy Fay ak njabootam ñu dalal ñu dalal du yéme adjaratu Jalika mi ngi ni responsable Action ci Ouest Foire mi ngi doog yex ci si ak délégation bu mag bobu ñi ngi nii doog a yegg waaw adjaratu Jalika ngi nonu ndaysan ànd ak ay mbokkam jóge fi nga xamné mom moy Dakar ñew fas yéenee dem ci pépinière bi dimbali xalé yi nga xamné amuñu ay wajur au nom de action xana rek di ci sante le professeur Daouda Ndiaye borom mouvement action sen tawfeex suñu yitte aju Docteur Dialeka mi ngi non di wacc ànd ak ñi nga xamné ne ñoom wa Dakar yi waaw gis ngeen ko présidente ni mu def mi ngi nii aju Docteur Dialeka ngi noonu aju Docteur Dialeka ngi non nek ki nga xamné mom moy mooy Jijak waaw aju Docteur ngi non Jijak ñu ngi lay siyaar bu baax ngi lay di la jaajëfal au nom de action ak professeur Daouda Ndiaye tey ñu fekk ci le fi Kaolack and ak kilifa gu mag go xam kenn dootu ko présenter muy adjaratu Jalika di responsable action feulé ci Ouest Foire nekk ci li nga xam mom moom action di xey ak ak gontu ci li nga xam moy ndigelu professeur Daouda Ndiaye jajak ñing lay xiar bu baax baax di la jaajeufal mais bala may ñew ci aussi damay filmer adjaratu yu jekk yi nga xam ñom ñoo gungé ki nga xam mom moom responsable du adjaratu Jalika waaw and ak suñu kilifa gu mag gële nga xam ne ñu dem ci Sénégal mom tamit moy and ak ki nga xam mom moom adjaratu ajaratu balaa ñu ñëw ci jale nag jijaak da nga lay nuyu nuyu bu gàtt rek comme ça ñu dalal gan yi su ko defee liggéey bi ñu yeggale ko fële nga xam ne moom mooy pépinière bi nga xam ne moom moo fi boole fii ak Kaolack jijaak ñu ngi lay ngi lay siyaar bu baax euh, Vito mhm. ñu ngi dalal gan ñi di leen wax euh, dal leen ak jàmm di nuyu Jalle ak délégation bu mu àndal mhm. di rafetlu délégation bi aussi mhm. te Jalle moom si moom laay commencé ndax jàmbaar la te jigéen boo xam ne jigéen bu mun góor très bien ku bari initiative la ku bëgg professeur la ku bëgg mouvement action la kuy déployé wu nuit et jour si terrain bi la ku ñuy conseiller la également si fonctionnement action ak yu rafet donc voilà ñu ngi leen di dalal dañu am tay manifestation mhm. donc bu ñuy def euh, pouponnière Bongré mhm. pouponnière lamun Coulibaly bu Bongré mom mhm. la ñuy préparé ni déjà tout est en place ñu ngi xaar euh, euh, l'autre mouvement V2S Yaxam ak Yaxam Thiam donc voilà pour dem ensemble. Mm. remettre le don. kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax xanaa Ajaratu Jalika moom dañuy bàyyi rek ba mu dem fii mi ngi doog a ñëw. bon wala ñu jox ko mu rek Adja ñu ngi lay siyaar. yoon bi mbaa méttiwul ak taw yooyu nga bàyyi ko. kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax xanaa Ajaratu Jalika moom dañuy bàyyi rek mu dem fii mi ngi doog a ñëw. bon wala ñu jox ko mu nuyoo rek Adja ñu ngi lay siyaar. yoon wi mbaa méttiwul ak taw yooyu nga bàyyi ko fa bàyyi say activité yëpp ñew dox ci ndigalu professeur Daouda Ndiaye fekk ci nga xamne mom moy le responsable ji jak fay fi ak Kaolack xana rek nga ñu nga dal ak gan ñi ba ci kanam tuti ajaratu waaw dieu euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar di ak euh, di euh, bi nga ñu professeur Daouda Ndiaye mm-hmm. nga ci ndigalam pour fekk b personne très positive koo xamante ni bii lu avancé loo action rek lay wër lu avancé lu lu jëmale action ci kanam rek lay wër donc initiative bi amee ñu waxtaan ak Djidiack vraiment dañu kontaan parce que dafa dafa ñu ubbil dafa kontaan ci loolu et ñu ñëw tamit jàppale si ko fii rek ndax ñun suñu rôle mooy ci lu gis nga nekk ci liggéey rek ñu ñëw. Thank you. leen ziar comme ni nga ko waxee woon ci tàmbali vidéo bi action ak kan le professeur Daouda Ndiaye seen tawféex suñu yitee yabaloon fi ki nga xam ne moom mooy ajaratu Jaleka di responsable action ca Ouest Foire ñu fekk si madame la directrice directrice ñu ngi lay nuyu fekk la fii ci pépinière bu Kaolack ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm di leen masal si coono waa nawet bi yëpp di kontaan si seen ñëw bi ngeen ñëw seet si ñi xale yi nga xam ne ñoo nekk si pépinière la professeur Daouda Ndiaye nee na seen taw féex suñu yitte lan nga gis ci daje bi nga xam ne nii moom moo am fii ci Pépinière bi ak Kaolack. la première fois ñu ay nit bu lool soxla na ko woon lool comme yegg na nag dañu sant yàlla di ko gërëm di ko ñaanal lépp loo xam ne def na ko def yàlla fayal ko incha allah. léegi sànq dafa am na loo xam ne da ngeen ko noonu da ngeen ko bëgg ci professeur dama bëgg nga wax ak professeur Daouda Ndiaye ndax mi ngi lay dégg ah. yóbbante ko ki nga xam ne moom mooy coordonnatrice su action Ouest ñëw fi tey indi fi loogu important bi nga xam ne am na ay couche ak ndox ak i yi nga xam ne moom la xale yi fooy lan nga yóbbante professeur Daouda Ndiaye ak lan nga yëg tey ci bis bi. di wax ne bu demee daal moo xam ne professeur daal lañ daal dafa kontaan nañ lool ndaxte yàgg na ñëw te lii mooy fàttewu ñu ñun daal li ñuy bébé si moom di ko ñaan si moom fajar am ko ndaxte fi 2001 jusqu'à présent amuñu moyen de déplacement bu xale yi feebaree dañuy jëli taxi wala ma boot nit ñi gis nañ ma waa Bongore boot ba fële ma arrêté taxi bi gis wala ñu jël taxi mu jël xaar ñu bu yàkkamtee dem bu yàkkamtiwul xaar ñu bu paree mu kii loolu yëpp si Papa Ndiane la loo xam ne bu ñu sañoon daal may ñu oto loolu lañ koy ñaanal talal ko loxo nga xam ne Ndiaye Diagne sama doomu baay xam naa ne moom bu ko yëgee rek yaramam dina def loolu kon nag teg nañ nga xam ne jigéen nga yaa xam lii dal jigéen ndax li dal fii ay

donc ñoom dañ leen di sant di leen gërëm parce que nag ñu ngi fekk doom yoo xam ne gisuñu yaay gisuñu papa ñu jël leen nekk seen yaay nekk seen papa jox leen amul bi nga xam ne moom lañu soxla kon yéen dañ leen di sant di leen gërëm di leen wax euh, Sénégal amul seen fay ndax tey li ngeen di liggéey ñun ñëpp la waroon ñun ñëpp la waroon donc kon yéen yàlla def na am ngeen xel bi am ngeen xol bi ba taxaw di jaamu yàlla ci xale yi kon ñu li ñuy def mooy fekk si leen ndax bi ñu V2S waxee événement bi bañ ko waxee professeur Daouda Ndiaye hésité wul dafa ne ay ay ci dem leen ndax nag naam euh, gis na waajur waaye dafa teel a ñàkk waajur à l'âge de huit la ñàkk wax ba dund kon fu ñu ko waxee xale boo xamante ni bii ñi ngi koy dimbali te gisul waajur day sensible envers la loolu moo tax ba ñu waxee ko pouponnière il n'a pas hésité dafa ne dem leen ak da ngeen mën ngeen dem jàppale bi te bu soobee yàlla li wax tamit dégg nañ ko te egg na ci noppam bu soob mënuñu leen ne ko def waaye egg na ci noppam te lëm ci mën bu soobee yàlla dana ko def incha allahu rabbi ñoo ngi kontaan di leen remercier tey ñaan yàlla na yàlla taxaw leen dëgëral leen ba liggéey bi ngeen liggéey ah ngeen am ci ndam am ngeen ndam ba pare sax waaye yàlla yokk ndax xale yi nekk fi tey président mën na fee génn ministre mën na fee génn leneen ak leneen mën na fee génn kon nag bu leen teggi seen tànk continuer ci li ngeen nekk xam ne ci kon nag ñoo leen sant ma la directrice di leen gërëm wax nag dinañ leen jël si waat bu soobee yàlla jaa ngeen jëf kontaan nañu merci dégg nga professeur Daouda Ndiaye xam ngeen les raisons pour lesquelles mu créé mouvement je vois que tout le monde est en train de hausser la tête donc cela signifie que ñëpp xam nañ les raisons pour lesquelles mu teg mouvement cela cela signifie quoi cela signifie que fépp le ñu nous ne am na koo xam des mi ngi def lu baax professeur Daouda Ndiaye day yàkkamte ànd yow ci c'est dans ce sens là que yaa s'est approché de nous wax ñu li nga commencé à liggéey donc mon biñ ko approché wax immédiatement il n'a même pas hésité de dire allez-y je vous accompagne et aujourd'hui on l'a fait à Kaulak, am Amazon le Amazone qui est ci beneen région du ko déjà et nous allons faire le tour du Sénégal

ne moo ñu andi muy les amis de Arona Dia ñi nga xam ne ñoom lañ ci fekk muy euh, fondation Youssou Ndour bi nga xam ne madame Ndour moo ko moo ko moo ko jiite waa action aw Kaolack ñoo ngi euh, ziar. waaw salaamaaleykum Sénégal. gaa ngi noonu waa action jóg nañu waa action jóg nañu ndeysaan au nom du professeur Daouda Ndiaye ndeysaan ndeysaan ah ajar jale ka am nga ndam waa action ngi noonu ndeysaan oh. wallaahi. maa ngi ko jël su ma paree dama lay jël en direct envoyé ko nga jox ma sa numéro téléphone. musique bee tax du mu dégg. ma xaar la waaw xaar ma ba pare. yàlla baax